maa ngi nuyu ñoom Moustapha ak ñoom Ousmane. vraiment tey moom am naa lu ma metti parce que ma digal ak si bi am na ñu ko xam soo ba tey ñu mooy comme si dama bokk ak moom direct bàyyi. ba tax na daa tey am naa lu ma naqari. Euh, euh, am na ay seede yoo xam ni war nga koy mën a yëkkati dëgg la metti na xibaar bu tiis la xibaar bu metti la metti mbokk jullit ñëpp euh, waaye ba nga déggee xibaar bi daanaka dëgg la nu mu la bett noonu la bette ñëpp waaye ñàkkul ne am na loo xam ne mën nga ko jëflanteeg Sidi Lamine Niass ci àdduna. nga mhm. ma koy xam xale bu tuuti la. te kaw la. bi mu demee ba dëgër fekk may def suma yooyu ma doon def foofu. te mhm. pour révolution yooyu. Euh, di loolu neex hmm. ma daan topp ma daan topp mu ma boobu maa ngi si parti bi ñuy wax PAI capitalisme hmm. Sidi waxtaanoon boobu ñu ngi waroon a indi ay jeunes si parti bi. Hmm. parce que dañ nëbbatu ma réfléchir woon si kaw ma ne kii xale la te doomu soxna la ci kër diine la bokk. ci bés buñ ko amee di indi si taalibe yi taalibe yu ndaw yeeg yu mag yëpp dina ko dina si mën a indi ñuy ñuy ñuy travailler si xar ceebu siisee ndeysaan gaañu na ñuy ñuy travailler si di ko travailler di ko formaté di ko formé ba nga xam ne lépp lu mu daan wax daka daan wax moo tax si yi muy def nii man dara jaaxaluma si xam na lépp ñëpp xam lañ la xam si di du doomu soxna rek yem sax

boobu sii di ñu ngi si benn étage bu janoog chambre de commerce bu kaw Kaolack foofu la ñoom Sidi dëkkoon moom moom ma tam euh, oto bi di corne di corne dégguñ ko benn waay yéeg ne eh kaay leen uyu uyu leen Ahmed ma sëpp nii gis ko mu ne kaay leen jël journaux yi moom Sidi wàcc dem jëli journaux yi. Mm-hmm. moom allah kubar mm-hmm. fekk na boobu maag si di ñu doon waxtaan ci implantation P euh, kii si di très organisé foofu kër googu mhm. defoon na ko benn carte Sine Saloum mhm. doon épinglé si carte bi implantation PDS yi da ko doon suivre de près si loolu la doon nekk ba bi Ahmed Ndiaye indi journaux yi mhm. Ahmed Ndiaye indi journaux yi lay ma si loolu pare ma daal di dem bàyyi leen fa moom dama ko mu suma rek mm, digganteem ak mag yi daan si wax am na lu bare lu sii di nangoo def man maa ko ko defloo mm-hmm. parce que suma rakk la mm-hmm. te mag itam suma rakk la mm-hmm. euh, am na livre yu bare tudd na ma si parce que xam na ma mais maam biram livre bii mu mujjee bind maam biram mu ma si tudd waaye lan muy wax xam naa si sii di la ko dégg donc sii di vraiment suma rakk la woon. jërëjëf nekk na ma trop. problème mu impôt yu mu doon wax bari ci démb si rajo bi. Mhm. ba mu paree rek laa ko envoyé message. Mhm. ne ko dégg naa la ngay wax. Mhm. dama bëggoon ñu tase ñu waxtaan. tontu message bi mais mu woo ma. ne ma doo disponible rek na nga ñëw. jërëjëf ma ne ko d'accord. donc euh, si bi moom. vraiment beneen affaire la si moom bari ci démb. Issa Tine mu ma invité foofu benn émission. Sisé bi maa ngi toon Sidi di ko di wax Issa xaw ma ndox def ba invité ma parce que Sidi du ko neexee day na boycotté leen ci su ko neexee mu ne woo leen ci <laughs> ma di ko tooñ noonu quoi mais vraiment hmm. xaw moon ne dans quelques jours hmm. léegi nag li des mooy léegi hmm. naa ñu koy wax mooy continuer œuvre bi ñu doon def œuvre nag si si ëpp mooy presse di nga Macky Sall li mu wax si si jaale ji jaale fan yëpp maa Mm. c'est un grand nom de la presse sénégalaise mm. témoin actif de mutations et des démocratiques de notre société mm. message ça, suis envoyé famille la famille. kon Quand li presse continuer presse c'est-à-dire journaux journaux fexe daal jàppale ñu ko war a yore ñu jàppale leen ci journaliste yi famille am ba nga xam ne daal day continuer ñu koy xoolee ñu ko xoolee fii bi parce que noonu la en Europe da ngay gis rajo yoo xam ne ko yoroon plus trois ans sax mais wax toujours rek nit ñi dañ leen di fàttaliku kon daa man li may wax daal mooy dañ jàppale ba nga xam ne duñ fàtte fii jërëjëf fexe daal ba duñ ko fàtte parce que vraiment fii di moom nga bëgg ko nga bañ ko nit la koo xam ne ñëpp la intéressé woon ba tax na maa ngi jàllee fan yëpp di jaaree euh, ni mu liggéeyal vraiment xam naa ne ñoom tey ils sont parce que plus lañ ko defoon. Mhm. moom itam mu def leen kam doom comme jarbaas loolu xam naa si dara. jërëjëf euh, ba tax na daal loolu laa mënoon a témoigner si moom. jërëjëf xam naa ne daal su ma rakkaloon man. ndeysaan ndeysaan yëf et cetera et cetera. jërëjëf ma liggéey si dara koo yàq. Mhm. man dafa ma nekk wan mu nekk dara mën ko gêné suma diggante waxtu ma bëggee wax ak moom wax moom waxtu mu bëggee wax man wax man waxtu ma yégee ne mi ngi hmm. hmm. ma ànd ak moom si xeex na ko yàlla yërëm amiin amiin jërëjëf Moustapha Fall Thié seede yi rafet na El Hadji Moustapha Ndaw ma fàttali ne yaay président fan sa club bu Walfadjri euh, El Hadji Cheikh Ndaw dama juum <laughs> euh, ma fàttali ne yaay président bu bu groupe euh, bu fan sa club bu Walfadjri boo gisee ñu a la fi dara nañ fi sànq sànq ki nga xam ne moom moo di Dramé c'est parce dafa am benn cër bu leen El Hadj Sidy Lamine Niass joxoon maanaam mën naa xam ne fa mu tegoon fan fan club bu Walfadjri daana foo sax tegu foon ñi nga xam ne ñoo di liggéeykat yi te sànq rek Moustapha Diop moo ko doon wax kon ñàkk nañ waaye yéen itam a nekk ci plateau bi yëpp di santat yàlla bu baax a baax di gën a julliwaat ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa di sant suñu sëriñ Maolana Cheikh Ibrahima ñas bàyyi mhm. di gërëm kilifa diine yi nekk ci réew mi yëpp. Euh, di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mhm. euh, di santat yàlla beneen yoon. Mhm. di santat yàlla beneen yoon alhamdulilah ala kulli haal. ndax yàlla bu dogalee rek. li jaam bi war a def mooy nangu. ndax yàlla warul dogal kenn di contesté ndax amuñ droit bi ndax moo ñu moom moom suñu lépp. di zaayee di baatin. kon alay si leme ñas li nga wax sànq. daf ñu tegoon foo xam ne fonk ñu mhm. fonk boo xam ne dara daraan xew ci kër gi sax balaa ko kenn yéeg si kër gi daf ñuy njëkk a wóolu mhm. danaan ko oustaz wala mu ne ko fay mhm. wool cheikh bu mu ñëwee mu ne ma nangam ak nangam waxal sa gaay ma soog leen woo ñu ñëw dajee waxtaan lépp lu fi mës a am rek noonu lay demee confiance la mës a am ci ñun jël na ñaari ñun ñaari nit si ñun yóbbu ñu màkk man la njëkk yóbbu yóbbu El Hadj Dramé confiance totale la mës a am ci ñun yàlla dafa def man yàlla dafa bëri lu may boole ak moom ci gént mhm. te gis nga bés bii tey wallahi wal azim billahi wal kitaab dama mës a toog benn bés image bi ñëw nag car sama kanam barki yenent yàlla mu muhammad ma daal di jooy mhm. Mhm. ma daal di jooy daal di jóg sël mu ñëw toogaat moo tax gis nga tey bi ñu toogee wax sa xalaat bi am ci rajo bi ñu dem ba mu yàgg ramatulaay daal di noppi ñu teg alxuraan bi damaa tëbee ci kaw lal bi rek daal di jël ndox naan ko mhm. ne bés bi yegsi na mhm. wallaahi sama téléphone bi di sonné mënuma sax jël mhm. ndax te nit ku dëggu ku doon défendre diine lislaam ku doon défendre peuple am te yàlla rek tax musul ragal pression ak lu mu métti métti da koy yenn te ko ci épaule am yi lu mu métti métti da koy jël yenn ko musul koo ragal ak lu mën di xew ak lu mën di xewee daf koy yenu su ne la nangam ji dina am rek soo yóbbu fekk ko ci lu mu décidé pour def ko soo yeboo topp ko pression mënul jógee fenn ba tax mu xaddi wala mu dellu ginnaaw mhm. fonk waa kër gi mhm. dara doon am sax nga ñëw dégg ko mhm. ñëw ne ko nangam ak nangam danaan ah loolu de rulu diw la woo diw wax ko wala waxal diw ak diw loolu dafay nekk loo xam ne dafa mën a bàyyi liggéeyu kër gi ñi fiy liggéey ñi si ak seen sago ci nit ñuy liggéeyee kon loolu rek sant yàlla la wax dëgg neex yàlla fan si yaa ngi ci suuf jooy nañ fu ne ñu wootee nañ fa waaye nag sant yàlla ndax am nañ yaakaar ci moom am nañ yaakaar bu baax a baax ci moom hmm. di ko jaale adduna bi yëpp di ko hmm. jaale Sénégal di ko jaale kilifa diine di ko jaale ñi amul sax ndey ñi bëgg a wax te mënuñoo wax amuñ fu ñu waxee yaakaaroon ko ñëpp ñu leen koy jaale te am nañ yaakaar ne hmm. liggéey boobu ci kër gi yaakaar nañ day continuer ñun de fi ñu tegoon suñu tànk duñ mës a dellu ginnaaw ndax damay dégg sëriñ aade doon wax ne booy def dara ñu saaga la ci wala ñu dóor la ci nga bàyyi ko nee na yàlla taxul waaye def dara mu mel ni nit ki nga visé nit ki nekkatu nga bàyyi ko yàlla taxul kon yàlla rek moo taxoon ngi def te lool incha allahu rabbul alamin dañ koy continuer ilaa yawmi diin léegi wal fajiri mu ngi taxaw mhm. taxawaay boobu dañ koy mës di ñu koy jaale ñëpp nag di ko jaale fans club yi nekk ci région yi mhm. ak seen président yëpp di leen ko jaale di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf Cheikh ñu ngi lay sant di la gërëm laataa ñoo jotaat keneen ci plateau bi rek am na benn mbokk mu ne ci ligne bi Boubacar Diop lay wuyoo moom bàyyi la ci kenn ci suñuy collègue am na ci sax ay seede yoo xam bëgg na koo ci yëkkati euh, sëñ Boubacar maa ngi lay ziar di la jaaral ki liñu bokk waaw di la muñ sama sama mbokk la sama la sama bëttandu la allo allo ñu ngi lay déglu ñu ngi lay dégg bu bakkar ñu ngi lay dégg baax baax waaw yaakaar naa daal à part euh, magam yu bokkal ndey bay mhm. euh, kenn gënu koy kenn gënu koy xam mhm. kenn gënu ma koy jege mhm. te day day da doon te sam doom ba pare ñu bokk napp yi yàlla napp yi yàllay tëdd jaamam ñu bokk napp ca kaso ba te xaritoo te lu yàgg nag lu mot lu neuf mois ñu nekk ko daanaka daanaka moo ma dugal ci ci ci ci diine ci diine daal. waaye euh, musulman laa woon waaye moo xam loo alquran nañu waxante dëgg moo ma xam loo alquran te du man rek maa samay morom yu bare ñu daan nekk ensemble di jàngandoor di gëstoondoor. Sidi vraiment je lui dois euh, moo tax bi ñu génnee ci xat-xat yooyu. ku nekk yi ngay war a dem nangam nangam nangam yàlla ak ay plan am fexe ba ma ba ma may ko sama doom maanaam sama doom dafa doon stage di jàng liggéey mu woon ma ne daal dama bëgg sa doom ma ne ko ah yónnee mu ne ma ah ma ko tey la alxamis boo ma yónnee ñetti nit ma may la jabar mu yónnee ma ñooñu ay waa waa kër waa waa bureau yi foofu ku ñuy wax xaalis sax defe naa mu ngi foofu euh, ak ñoom Babacar Touré ak euh, euh, jabar ci saa waaw kenn mosul gis loolu te su te te ngoon sama mu yóbbu jabaram alors jabar jooju am naa ak moom ay bam macha allah fii la ñu daal sama jeune frère am na yoo xam ne boo ca tolloo.

Euh, ak ay mbóot yu bari la te am ñàkk ci ñaan alors un homme comme ça du man rek la ko defal ñu ko defal parce que ñu nekk ndooroon ci kat-kat dañu bare ñu ñu bare ñu ci bare il a tout fait pour nous attacher à l'amour du Coran à l'amour de Dieu alors donc Sidi Lamine ci dëgg dëgg dëgg dëgg dayam bi metti na ma trop metti na ma trop trop trop yàlla rek moo xam waaw euh, di ko ñaanal yàlla yàlla ko yàlla xare ajana te ajana yu gën a koy te yooyu na aw ma ci duur aussi mhm. waaw parce que laa beaucoup fay pour Dieu dëgg la laa beaucoup fay pour Dieu mhm. et il m'a attaché à l'amour de Dieu parce que ci qui m'a montré Dieu en réalité jërëjëf Diop jërëjëf Diop jërëjëf ñaa ngi leen koy jaale maa leen koy jaale bu baax a baax a baax mhm. jërëjëf euh, euh, di jërëjëf ci seede yooyu lee euh, di ji Yves balaa maa ñëw si yow xanaa dañuy jox kàddu gi rek soxna si daa mel ni que ñu ngi koy woo naan ko doomam jaa ngi jooy si suuf nit la koo xam ne ni wax dëgg yàlla ko yàgg jëflanteeg Sidi Lamine Niass la nekkoon sax kilifa ci kër gi tey jii moom it ba mu déggee xibaar bi dafa bàyyi léppam ñëw fii ngir def ay seede comme ni ngeen ko defee yéen ñi ñëpp mu mel ni tey jii daal mën naa wax ne ne retrouvaille am na waaye retrouvaille bi daanaka kenn ñaanu ko woon Eh, bu dee si di la mine sumu yaakaar naa ne yow war ngaa mën a def seede si moom. ay seede Diouf Fall. seede naa ngi lay nuyu. di nuyu ñu nekk fii ci kër gi yëpp. di nuyu itam ñu nekk ci mbedd mi. ndax mbedd baa ngi fees dellu. di nuyu bu baax tamit sénégalais yi fi ñu nekk. ci àddina bi. li nga wax dëgg la sama ñëw bi tey. ñëw bu tiis la. ndax euh, ba ma fi jógee yàgg na suñu jumulee 2008 2009 laa fi jógee te euh, mun naa wax ne ba ma fi jógee ba léegi ci laa gëj a romb sa côté bi ndax man noonu laay doxee mhm. tellement fi ma yëgee yëg-yëg bi ma am fii dafa rëy mhm. ñaari ñaari métit laa fi am ndax euh, sa beaucoup d'émotion mhm. ndax kër gi ba ko siiri di sanc booba dara nekk fi woon te pour wax la ne visionnaire la woon bokk na si ñi njëkk jàpp ne mhm. euh, média mhm. bu weesoo euh, côté social bi mu am mooy ci askan wi la mhm. dañ ko war a delloo ci askan wi mu jël lu mel noonu wala groupe doy na groupe Walfadjri ba muy sanc fii mooy groupe bu gënoon mag ci Sénégal mu jëlee ko Sacré Cœur quartier résidentiel indi ko fii Derklé jàpp ne quartier populaire pour mu gën a jege askan wi ba mu koy def à l'époque ñu bëri dañ doon wax naan si lu ko dal lu ko dal kenn ñemew ko mu def ko mm-hmm. kër gi plan beeg yëpp bu mu ko defar sama kanam la mm-hmm. mu ci waxtaan ak man ndax uh, ku ne xam ne ne mm-hmm. bu ne si di formé nañu bari kàngam yi fi jógee bari nañu xëy ne maa fi gën a tuuti waaye bokk naa si ñu si gën a fës ndax ku ne xam ne ne sama papa la woon te du papa bi du ay papa wax uh, léeg nag uh, moo ba mhm. te dara musul ñaaw eh, man ak moom eh, dañuy déggante nekk si jaam ak salaam ndax lii jiitu ci xol moo ci mujj mhm. kon tey eh, lii Euh, monsieur Diop mi génn léegi wax mhm. su ma jumbalee mooy Boubacar Diop euh, promotion mhm. nekkoon euh, nekk waa Diouf ci Ndeye Marème Ndeye Marème mhm. nekk <laughs> waa ah, sama sama xarit moom bu baax a baax nekk aussi madame ñas ñu koy jàll ak famille bi yëpp kon Boubacar moom mun na sedd lu bari ci fii ak ci Sidy Lamine nu mu wax ne sunu xel mën na dal ndax mën naa sedd man ne ku mën a wéetal sunu borom bi la ndax moo ma doon wax ne yàlla boo ko gëmee danga koy wóolu Euh, lu metti metti metti metti metti da day toog ci bureau bi mhm. amoon na benn course bu gudd gudd gudd boo xam ne dama ko doon wax na ko si course bii de mhm. man de euh, xaw ma course exactement Euh, li mu wax léegi nag moo ko rapproché ci Coran man mi mun naa wax ne Sidi. su ma sama jullite moo gën a yokk. moo gën a yokk des na ma ne ko Sidi day xaw ma exactement. Hmm. ñaata perle damay dégg ñu naan cent ñii ñii nangam. Hmm. mais yow sa bés bii ma gis bu ni mel. mu ne ma bii grosse artère yi laa koy <laughs> tuddee. ñu ñuy dégg lii dinañ ko xam. Hmm. bu toogee fu jafe-jafe jafe. bu jafe-jafe lu mu gën a metti metti bu toogee wéetoo bu tàllal kurus bi lu mu ci ñaan yàlla may ko kon ku mm-hmm. mel noonu mm-hmm. sama xam-xam nag euh, wax dëgg yàlla solo loolu tamit lu leer la mm-hmm. mais sincèrement sama xel dal na ba ma duggee fii tey dama yeewaal tristesse bu metti ndax euh, ñëw bi fii sax yàlla xam na ne euh, dama mënul mënul mënul ñàkk la ndax dama toog sama kër di seetaan ma ma gisee Adama Kandé nga xam ne ginnaaw yàlla yoonte moo ma dugal fii ci kër gi sama demande de stage man benn demande laa mos def ci àddina ci wàllu liggéey demande de stage la mm-hmm. boobu maa ngi première année ceci di doog a ñëw mm-hmm. Adama Kandé laa ko jox moo ko indi fi ba ma toogee maître laa koy wooye ba léegi ba ma toogee ci télé bi rek di seetaan mosuma xalaat nag sincèrement ñii ñëw fii ñuy woote parce que discrétion boobu laa laa amee mm-hmm. euh, aw moon courage aussi ñëwaat fii sincèrement mais ba ma gisee Adama Kandé toog ku ma jaxate maa tok amlamin ah, samba ñoo ñep tok mm-hmm. ci la ne deug mm-hmm. deug mënu mm-hmm. ah, ma tok ndax eh, besu tok eh, du tay motax ma deug ba ma ñewé aussi sincèrement tout ce mettre la dougalé ma ma ñewé je sens sa présence partout ici da daf ma gëna doolé donc li ñu mëna wax bari na fi aussi kër gi euh duma yag lu bari ndax tay jotaay bi bari na ñi fi nekk tay fa mu nekk ñi ñi sétane tay xamna xol bi toy na ndax Sénégal bu ne yëg na ne ku màgg jóge na fi Sénégal at mii at mii ak yi ko weesu kilifa bëri jóge na fi mais tey réew mi xam nañ ne ki fi jóge akàngam moo fi jóge kilifa dëgg moo fi jóge tey gis nga num suturaal na boppam ba dem mm-hmm. euh, feebar na wala feebarul mm-hmm. kenn xamulu ko dara mm-hmm. suturaal na boppam ba dem te yàlla na ko yàlla gën a sàng mala malaanu sutura fu may tëjee rek mooy fii Walfadjri si di suma suma jumbalee ñaari bëgg-bëgg la amoon ci àddina Sénégal ak wol Walfadjri Sénégal boobu nag moo tax mu créé wal fajiri mhm. wal fajiri askan wi la ko la ko la ko créel mhm. naa yu bari yoo xam ne dafay privé famille am mhm. sacrifié famille am complètement pour wal fajiri euh, si di wal fajiri moo tax nekkul milliardaire lépp lu mu am wal fajiri d'abord famille am ensuite loolu euh, je parle sous le contrôle de sa famille te bëgg famille ak bëgg wal fajiri gëm aussi professionnel yu fi teg moo tax ba euh, musul dugal dafa daan wax mm-hmm. famille wala taalibeem mm-hmm. fii mm, doomu soxna la kilifa diine la mm-hmm. fii kër gi les gens travaillent en toute démocratie contrairement à ce que les gens croient te sànq maa ngi dégg Ousmane Sène def témoignage di wax ne ba démb mi lay woo yow uh-huh. naa la ci ay affaire propagande élément nangam propagande yi ñu man ba léegi noonu laay doxee donc mu woo la te te woo na ba mu lay woo euh, am ndax ku yàlla may la may la am na lu mu yëg sa yaram si di ah. demoon bi ñun la bett mais moom bett ko mhm. loolu ma leer leer dama sëriñ si la demee mhm. donc ba boobu mhm. donc dernier geste moo def sur mooy woote woote boobu woote boobu joxe recommandation ah. donc donc euh, bu dee bu ñu wax testament ci àddina lool la mooy wane fi ko Walfadjri toll donc uh-huh. koo xam ne yàgg na sacrifier am dundam ci Walfadjri euh, ba muy créer lii sos lii ñàkkul taalibe ñàkkul mbokk ñàkkul doom su ma juumalee Euh, Cheikh Euh, moo xawoon intéressé ci doomam yi ci ah, yëfu média Cheikh Niass te mu nekk avocat léegi mm-hmm. euh, moo xawoon intéressé ci yëfu média mm-hmm. te je pense que je suis pas très sûr xaw ma ndax dugg na ci bu baax ou pas te léegi sax am na doom buy def euh, journaliste mooy Salma gis nga mm-hmm. donc mu ngi nekk le monde donc xam nga ku mel noonu fii si réew mi mu jafe lool nga créé sa yëfu bopp jël ay doomi jaambur rek bàyyi la liggéey loolu dafa facile yombul kon ku def loolu tey mu génn bàyyi héritage bu doon nii yaakaar naa ni état bi tàllee képp koo xam ne rek mën na si jàpp dañu war a fexe ba lii bañ a nax saay ndax fu mu tëdd mu mën a tàlleeku ndax toute sa vie il a sacrifié sa vie pour lii ma jeexalee dara ndax loolu mooy gën a firndeel sama nekk ak di mooy wal fajir bii fii sama premier ménage fii la ma mayee su ma xam ak ay affaire foo wala fi ñàkk fay ra tey muy sama papa nag papa hmm. axkan hmm. eh, lah, hmm. ba nga xam ne musuma amuñu man ak moom ay ay demi mesure wala ay tabu ba ma ñëwee na ko man si dama am copain dafa tiit ndax moom dafa def foog na man góor laa mm-hmm. mu ne ma non copain copain copain man man daal euh, copain laa mën a wax daal ma copain ci si moom laa xam moom moo ma firil tamit doxaan dama mm-hmm. dox ànd ak expliqué ah. ma ne ko waaw ma ne ko waaw mm-hmm. ma ne ko loolu la mu ne ma ah woo ko léegi mu ñëw ma woo ko mu ñëw ci si ba mu ñëwee mu waxtaan ak moom ne ko kii sama doom la te xamee ma ko caaxaan xamee ma ko fo bu fekkente ne li ngay wax dëgg la si yow dafay dañ lay may kooku d'accord sama mariage boobu suñ la ma def lépp yàq na ci ay millions yu bëree bëri Lamine Samba hmm. day wax ne si sama mariage dañu ko laal million fii ci kër gi Walfadjri bi hmm. la ma la ma la ma la ma mayee hmm. defe naa loolu bëriwul te moom ci boppam Oustaz Assane Diouf mun na ko témoigner ndax euh, Assane Diouf la woo Euh, jël euh, carnet d'adresse bi mhm. euh, defarlu ay de invitation képp kuy kilifa ci réew mi rek mhm. Sidy Lamine moo la yónnee invitation lépp wane sagal bi ma sagal mhm. ak sargal bi ma sagal sagal na ma sargal na ma moo ma njëkk a jox salaire ci àddina njëkk moo wóolu wóolu jigéen aussi Penda Diallo ngay mi ngi fi mun na ko sama témoigner Penda Diallo mooy pionnière u kër gi ba mu koy dénk li mu ko dénk kenn xamul ban at la te ba léegi dara ñaawul kon li moom fi may jeexalee daal mooy fi ñëpp jeexalee rek ñaanal ko ko ñaanoo ko ñaanal ko euh, kilifa diine yi tamit ñi nga xam ne ñoom la bokkal wàll bi mm-hmm. ku ci mën a ñaan nga ñaanal ko mm-hmm. mais surtout nag ñu góorgóor ñu ñëpp rek fexe ba li nga xam ne bàyyi na ko fii euh, mm-hmm. ak yéen ñi nga xam ne euh, yéen a ngi fii ci kër gi ñu fexe rek ba ginnaaw yàlla bu tegee loxo ba pare képp ci mën a teg loxo nga teg loxo ba fu mu tëdd mën a taal jërëjëf Fall ah, jërëjëf loolu di ay seede yu am solo yoo xam ne ñu ngi ko nangoo ci Aïssatou Diop Fall ma fàttali leen ne moom nekkoon na fi directrice des programmes fii ci Walf TV Euh, mu doon ay seet yu am solo euh, keneen tamit koo xam ne ni jaar na ci kër gi euh, di DJ Yves DJ maa ngi lay jaar bu baax a baax di la jaale bu baax a baax li ñu bokk dama fàttali ne sama ancien <laughs> collègue nga am na fu ñu jot a jaar te ji yàlla def na ngay ñëw fii retrouvaille am na waaye retrouvaille bi nag bëggee wuñ ko woon nii kon ñu ngi lay bàyyi nga am ay seet yoo xam ne di nga ko def di ko def jëmale ko ci El Hadji Sidi Lamine Niass comme ni nga ko waxee yow suma ancien collègue nga am na fu ñu nekkoon man ak yow te yàlla boolewaat ñu daje fii nii mais daje bi neexul parce que dafa am koo xamante ne euh, dañu ko ñàkk donc dañuy wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun kullu nafsin saa'ihatul mawti bakkan bu mas dund digga mas dee donc euh, bu ñu fi dajee tey defe naa dañuy def ay seede ci moom ay seede yoo xamante ne man damay fàttali sama bis bu njëkk ci Walfadjri ba Walf 3 la woon rajo musical bi mu jaaré ci ndem ci yalla edouard adama ndjay mom tam ñu koy ñaanal euh bi ma ñëkke animé bobu ñu ngi sacré cœur genn ci studio bi hmm. sid lamine la dajel ci escalier yi mu taxaw ak ndjay dos hmm. mu woma hmm. nama yow euh lo bok ak edouard manoko edouard bokkuñ dara mom ndjago la man tukuleur la mono me sen bati ben la man bi ngay wax sangam yaakarou na sax mom mo ñewat tok ci radio bi di waxat manako wa lolou yalla mo koy def waye nak Euh, bokk na ci nga xamante ne tey ñoom ñoo ma tax a dugg ci wàllu animation ci wàllu rajo donc pour ñu gàttal rek dañu koy ñaanal yàlla xaaree ko aljana euh, li nga xamante ne bàyyi na ko fi je me rappelle yàggul dara même pas un mois maa waxtaan a Baye jaane ma ne ko euh, bëggoon naa gisewaat ak Sidi ñu waxtaan pour xool lu ñu defaat. mun ne ma incha allahu bi dafa nekk ci ay voyage mais bu ñibbisee dinaa la woo ngeen toog yéen ñaa ngeen waxtaan yàlla def li muy def dañu koy nangu parce que yàlla moom mooy tegee nattu donc dañu koy ñaanal ñaanal sa famille aussi ñu muñ ah, di ko jaale Sénégal yëpp di ko jaale sa famille di leen ko jaale yéen ñi nga xamante ne aussi yéen fi toogoon di liggéey di wax salaamaaleykum. jërëjëf loolu day kàddu yu am euh, si sa wet yaa ngi fi nekk aussi koo xam ne sa ancien camarade la aussi nekkoon fii ci Walf euh, Walf Walf FM ak Walf TV yaakaar naa ne fii bokk na si nit ñi nga xam ne ñoo fi njëkk a présenté édition Pascal Alioune parce que Aliou ñu ngi lay masawu te di lay jaale li nga xam la ñu bokk. merci Seydina que. Hmm. Il y a été dit c'est la presse qui a mm. perdu hein, de manière générale. Mm. La presse nationale, mm. la presse internationale, l'Afrique, le Moyen-Orient, le monde entier. Euh, Warchi ce n'est pas évident parce que c'est un très grand monsieur, au sens vraiment large du terme. Hein. C'est un très grand monsieur et moi ce que je retiens de lui c'est que c'est un monsieur étonnant, c'est un monsieur détonnant. Pourquoi je le dis Parce que, Sidi, euh, il a, il a au-delà de l'homme public que beaucoup connaissent, dans le privé, c'est un autre monsieur. nous tous, quand on est arrivé, bon, on avait devant nous le grand site ce qu'on entendait à travers les médias et tout. Mais bon, il beau que découvrir. Tel est, il t'accueille, il te met à l'aise. Et je crois que l'une des forces de Wolf, réside dans la capacité de Sid Lamignas à accueillir le personnel, à les préparer par rapport aux défis qui les, attendent. Pourquoi je dis ça euh, Tu m'as rappelé de beaux souvenirs à travers le 12 heures de Wolf. Le 12 heures de Wolf, c'était sacré. Je passe le contrôle de Papis que j'aperçois à côté. C'était sacré le 12 heures de Wolf. Mais Sid Lamignas avait une capacité à te préparer je me rappelle une fois on était dans sa voiture et c'est lui qui était au volant c'est peut-être l'une des premières fois que j'en parle et il me prépare psychologiquement Il m'a expliqué les grands noms qui étaient passés à Wolf à l'époque on les on les adulait il m'a expliqué les difficultés que cette personne avait eues à entrer en possession des grandes éditions des grands moments de Wolf. Me m'a expliqué comment il avait préparé certains grands noms à pouvoir assumer cette tâche. Après, tu te dis, tiens, ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il me fait confiance, j'ai un coup à jouer et je ne vais pas le décevoir. Et euh, de Glossaire à travers les témoignages des uns et des autres, le personnel, ceux qui sont passés par ici, tu te rends compte que, que il y avait une relation assez particulière, une relation de, entre un père et un fils. Moi, je ne me suis jamais expliqué pourquoi. Comme dans le journal homme, partout hein, à l'étranger, le c'est de la mignasse. Tu marches dans la rue, on t'appelle à ah, donc c'est de la mignasse. C'est pour vous montrer la dimension que l'homme avait. Et peut-être comment, en l'approchant, son image se reflétait un peu sur nous. Pourquoi je dis que c'est un monsieur étonnant et un monsieur, un grand monsieur étonnant, un grand monsieur détonnant Je crois que c'est de la mignasse pour le comprendre un peu. C'est un peu, comme l'a dit tout à l'heure, je crois, c'est euh, quelqu'un l'a dit tout à l'heure avant moi, en parlant d'un étranger parmi les siens. Je crois que ça résume un peu Si dit, tu peux pas, tu peux pas canaliser. Tu ne peux pas comprendre. calmer. calmer conviction. Je retiens que c'est un grand monsieur qui est parti, un monsieur de conviction. En fait, il n'est pas parti, hein. c'est une partie de lui qui est partie. Je crois que c'est comme ça qu'il faut comprendre. C'est une partie de lui qui est partie, et il laisse un héritage à entretenir. Je suis très ému parce que bon, la relation que j'avais avec euh, avec Sid Lamenia, c'est un grand monsieur qui est parti. C'est vraiment il y a le monde entier. C'est vraiment le monde entier qui a perdu. Et, ça se voit au niveau des témoignages. Ça n'arrête pas. on, fait vite pour passer parce que nous, petit tu vas aujourd'hui sur Internet, c'est comme si le monde s'est arrêté. Les témoignages de partout dans le monde. C'est extraordinaire. C'est à l'image de ce grand monsieur qui est parti. et vraiment comme j'ai dit tout à l'heure il y a le xare àjjana yi à a kaw jërëjëf loolu day kàddu yoo ñu Pascal Alioune moom bokk ni si ñi nga présenté édition fi nga xam moom moo di ci Walf TV euh, laataa maay jox Cheikh Omar Soumounou mooy Khalifa Fass bu euh, Kacoon euh, ñu jox kàddu gi jox ko Amadou

c'était des relations entre un fils et un père. Euh, parce que je suis venu à Walfadjri en 1999 alors que j'étais tout petit étudiant euh, ma fek fi ay tamit ñu euh, Dos tamit Ousmane Papis Diaw ñom Adama Kandé ñu ci bi ci correspondance xamal ñu tamit naka def ba naka la ñuy def les reportages et tout ça euh, bon loolu tamit euh, témoignage la boo xam ne ci wàllu liggéey bi mais témoignage la tamit euh, ci wàllu site la bi ñes ci boppam parce que yàgg na ma xelal aussi ci wàllu liggéey bi yàgg na tamit xelal ci wàllu objectif yi nga xamante ne Walfadjri am na ko maanaam mission yi te tamit lépp loo xamante ne soxal na soxal na ko ci wàllu ligne éditoriale tamit euh, Mangifatli aussi euh, j'ai eu beaucoup à apprendre j'ai appris beaucoup fii Wal Walfadjri euh, nee tamit il m'a permis aussi de Sidi une mission à l'étranger je me rappelle en 2011 du ma président conseil régional de Matam Abdoulaye Dramé Pour a pour France ma dit attention je nga ma yóbbu France c'est vrai mais Wal Sidi je wala nga bind ko je ne non j'ai pas son téléphone ma ne ko d'abord parce que ne sais dem ci mission euh, dit en français que mom yegu ko mais bu ma ko yëgee mu laccé Ousmane Sen laccé tamit euh, Oumar Ning ñu ne ko budé dee ay la bàyyi ko mu dem bon quand je suis parti en France en reportage ma ñu ma dugg biram il m'a félicité de vivre. voix pour xamante tamit bayina xel ci limay def bi dem Tombouctou tamit au Mali dem def foofu ay reportage ñëwaat delu biram mu témoigner lo xamante du rafet la c'est pour vous dire que li Pascal wax léegi-léegi c'était un homme multidimensionnel nit la boo xamante ni day déglu ku ne te man personnellement toujours fu ma gisee ayika la may wax comme ni ko ñëpp di waxee dans la maison bon tamit à un certain moment même bi ma jógee Walfadjri dafa wàcc ci otom rek ma dugg mu ne tu vas nous quitter parce que certainement il a eu des informations que damay de ministère de l'environnement bon ma ne ko non je ne vous quitte pas mu ne si si dégg naa tu vas partir tu es même parti mais s'il te plaît ne pars pas reste dans cette maison parce que maison la boo xamante dem pour tout le monde Ça yaram daw mais bon chacun a son destin aussi finalement je na ne je suis parti ma ñëw wax ko Ousmane ne bon bon vent et toujours vous souhaite aussi il faut nekk réussir mais toujours je ngi bàyyi sama xel wala fajri Tu ma toog un mois wala deux mois je ma fii ça le personnel peut en témoigner loolu ce Seydina Omar voulais comme témoignage Euh, di leen fàttali tamit euh, tout Matam maanaam toute la région mu ngi leen di jaale euh, Sidy Lamine Niass ci tamit ci kër diine yu mag yi Thierno Mouhamadou Samassa bu Matam moom Sidy Lamine yàgg na ma ko wax yàgg na ma ne Thierno Samassa sama xarit la damay ñëw maatam di ko may ay téere alxuraan di ko may ay livre loolu tamit témoignage la boo xamante ne dima koy def fi ñoom waa Galle Thierno Aliou Thiam bu Wuro Sogi waa Galle Thierno Amadou Wuro Sidi bu Matam tamit ak mboolem sëriñ yi nga xamante ne ñoo nekk foofu ci sama tur maa ngi leen di e, yeggali njaale bi nga xamante ni ñu ngi leen koy jaale ci Lamine bi nga xamante ni moo génn àdduna Seydina Omar Ba. koy nangu dina xamal ne rek tiis bi daanaka ñun ñëpp ñoo ko bokk euh, ci plateau bi ñu ngi fi nekk Cheikh Omar Soumounou mooy xalifa bu Fass Kacoon euh, yaa nga fi xalifa bi ñu ngi jégalu baax a baax a baax a baax euh, mais jëmm ji dem rek moom moo ko yar ñu ngi la koy jaale bu baax a baax a baax Cheikh.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 ma aata wa lahu ma axas da kullu shay'in indahu bi ajal yàlla moom moo ko joxoon moo ko jël lu nekk ku nekk nag am na bés booy dem ci Lamin nag suma digganteeg moom dafa yàgg ndax suñu bàyyi la woon sama bàyyi ala maak moom ñoo doon reer ak moom mu créé benn troupe théâtrale dugal ma ci ba may bugg a daw jàngi Mauritanie man ak moom ñoo waroon dem dem fekk fa le fondateur du mouvement Falah Alhaji Mahmoudou Ba concours bi ma demee moo ma wax ne avant ngay dem am na concours bu ñuy def moom moo ma ko wax ak ku ñu wax xam Hamdaw yàlla na ko yàlla yërëm concours bu lañ ci laa def moom laa yàlla def ma at mi dem dem dem jàngi Maroc kon tey lépp lu may tasaare ci diina ci à travers le Sénégal liggéey na ci yal na ko yàlla fay waaye yemul foofu sama bàyyi weeru gàmmu euh, bésu gàmmu gi weesu mooy vingt-huitième anniversaire ndax ci guddi gàmmu lañ ko suul te ma gàmmu gàmmu gi gàmmu gi yónnee na ma Ousmane Sène moom ak Mamadou Mokhtar saar ak Abdoulaye Dia kon yàgg na di ma invité ma fii fekk na ma sax kër gi may dal fii soriwul ndax fii laa ko déggee tey man xam nga dama ñëwoon fii pour pour mission ndax def bourde ba pare gàmmu dafa métti ci ma mu toll ni man waaye mission moom indi woon ba benn sama taalib moom ma téléphone léegi rek ne ma aussi la min génn aduna non la jogé rek ay xaalis sax danaka la àndal ndax wo ma délégation kon ma ngi wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun allahumma ajirna fi musibatina wa ahlina khair minha ma ngi koy jall nak nuko waji waxe al umma al islamia duko jaar sax tout le monde parce que yoon dafa ne sallallahu alayhi wa sallam mawtul aalim mawtul alam borom xam-xam bu faato c'est tout le monde an faatu te moom dimanche yow xam naa ne Palestine tam dañ ko jooy di ko jaay nag di ko jaal euh, oustaz Alxasan Diouf ndax ñëw naa fi fekk la ñoom ñaar ñuy liggéey ci ay téere téere sax am naa ci xam naa ne kooku tam ku ko jege woon la maa ngi koy jaay tam al oustaz Alhaaji Hadi man treize heures treize heures balaa yooyu laay mujjee déglu yow suma turandoo yow lay mujjee déglu ci revue la presse ci bu wolof bi ma door a préparé julli ji tisbaar chaque jour ka ka jëfe kon maa ngi leen koy jaal te ñaan yàlla di jaal tam njabootam di ko jaal njaboote alxaaji abdullahi ñas yëpp waaye di ko jaal tam doomu daara yi ndax doomu daara la woon mais doomu daara boo xam ne vraiment fierté la pour ñun ndax wone na ne du du ko jàng français dong moo mën a def lu mel nii kii itam bokk na ci ñu nga xam ne ñoom moom tam suñu fierté la ndax ñoom ñaar def naa ñoo demoo de Égypte waaye itam Mamadou docteur Modou Sankaré mooy responsable du département mathématique maa moom ñoo defandoo BFM ci benn classe au Maroc kon si di lamine vraiment suñu fierté la ñu ñu doomu daara yi fa mu dem nag yàlla na ko gëndal fi mu bàyyi lii mu fi bàyyi itam vraiment ñun ñu ngi ñaan parce que li ngeen la voix de sans voix kon ne xam na ne man dama néew doole bu doon doole rek mooy tax mu mu dafa ñëw ak xaalis du ma yónnee ay équipe waaye sama message ci ci l'islam tasaare ko à travers le monde kon yàlla nako yàlla fay yàlla nako yàlla yërëm yàlla yàlla taxaw jabotam way wal bi bitam yàlla jëm kanam ba ba faw kon bok li la amoon lumay wax ci ci gàttal wasalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ay seede yam solo yo xamni ñu ko nango ci Cheikh Omar Soumounou moom mooy xalif général bu fas kawon euh fay ñangi conseil municipal la nek fi ci Dakar euh dégg nga xibar bi euh bu nouvelle c'est ça kon dégg nga xibar bi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 xëy sama teewaay fii li ko waral mooy suma benn grand muy Ousmane Sène mhm. di ko koy jaale bu baax di la ko jaale tam yow Omar Ba mu gàtt rek ki fa jógee mhm. tey en tant que jeune mhm. en tant que ndaw ci réew mi di Sénégal dina jàpp ci moom ñeenti pàcc homme du savoir bi mu doonoon mais am générosité ci partager ko te borom xam-xam xamle yàlla na ko yàlla fay jëf boobu mu jëfoon ci dunya amin amin amin hmm. beneen bi moo di li mu doon gën di liggéey nekkoon ci milieu de la presse muy homme de presse bi mu doonoon hmm. mais ban presse hmm. euh, ndem si yàlla Sidi Lamine Niass ci ñu ko yàgg di observer a toujours prôné pour une presse libre et démocratique musul nangu ci benn jamono ku ko tënk moo xam ak noo ko bëgg a tënk bañ na avec dignité ba wuju borom kon tey buñ ci nekkee ndaw dinañu inspirer de modèle ñetteelu pàcc bi mooy nitu diine gi mu doonoon gannaaw fi mu bokk ci askan te am ñu ko fi wax sànq mais mënoon na ci bokk rek ne yuus ne yàgg ne yasar mais am na lu mu ci bokkee ni mu ci bokkee mooy ku fi musa jóg ak koo mën a di nasaxal diine nurug lu koy xarab ba di remettre en cause lu sax dakk abadan daayiman yow man koo mën a doon dal sa kaw yi fi xew rek bu yàggul jarul di ñëwaat firnde na ko fay jëf di mën nañ ko un politique bu politique ko définir de gérer la cité à sa façon à lui def de défendre surtout la population, le bas peuple. Mm-hmm. Walfadjri euh, Bado bi mel Niman, man mm-hmm. télé yëpp baax mm-hmm. mais télé boobu ngay gis sa parce que ni mu la population ni mu jegee askanam donc ci ñeent patio yep yëpp kii fi jóge tey di tiis di perte ci Sénégal yep remarqué nous ci dundam gannaaw ba mu amee occasion une fois dans ma vie de lui serrer la main par le biais d'Ousmane Sène yàlla na ko buur yàlla yërëm mmh. yàlla na te yàlla yéexal ñu yàgg di ko ñaanal mmh. yàlla na ko yàlla ñeewant mmh. ci bàmmeelam te bu ëllëgee mu yërëm ko jërëjëf muy ay wax ju am solo yoo xam ñu ngi ko nangoo ci Faye conseil municipal la nekk fële ci Diourbel laataa ñoo ñëw ci oustaz Ndiaga Seck dañuy dem fële ci Kaolack parce que ñu ngi may xamal ne ci ligne bi xalif général bu Léona Niassène mu ngi ci mu ngi ci ligne bi euh, xalifa bi maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax allo salaamaaleykum